ñoom ñaar boo leen gisee ay dara ak demi saison bokk na ci seen colin mag ak kenn ka mu nga tudd M madike mu ngi judd atum 1990 kenn ka tudd M Saw mu nga judd 1991 mooy mag ja ñoom ñaar ñépp àllarba ji ñu génn di dinañ leen di dalal ci tirbinal grande instance bu Louga lu waral seen woote boobu mbokk yi ndax nag lañ leen di toppee mooy wàllu escroquerie maanaam wàllu njublaŋ te ñu tënk ko ci million yu bare bare bari ñoom ñaar ñi nga xam ni askanu Louga tuumaal na leen ñoom day fexe na ndekk ba seen plan bi ñu daal di koy réussir ba njublaŋ ñoo xam ni dañoo pare woon ngir dem ci yoonu tukki bi nga xam ni dangay jël roppalaan maanaam émigré gi ñoom dañ leen a digoon ni leen di ngeen am ay visa yéen a xam ñi jëm Europe wala ñi jëm Canada waaye nag ban leen artee jàpp nañ ne ñoom ñoo coupable ñu tàmbali ci rakk ji rakk ji jaaykatu café Touba la foofu ci diwaanu Louga moom la njëkk a taxawal déglu ko mu ñëw bu baax baax ci mbir yi ni mu demee engagement bi mu am ci ginnaaw magam ñu ànd ko ay at di ko liggéey ci diwaanu Louga ñëw na ci nettali ko avocat ya ko askan wa woon ci tribunal ba moom rakk ji nga xam ni mu ngi wuyoo ci turu M Madické nee dey li nga xam ni mënees na ko wax ci mbir mi maanaam mooy gannaaw ba nga xamee ni sama mag woolu na ma ni ma daa bëgg ñu jëflante ci wàllu liggéeyam dama dagg la ma jàppoon yépp ànd ak moom ñuy gëstu li nga xam ni mooy fexe rek ba yóbbu gaa yi ñu tukki nee na ci circonstance boobu laa nekk ndax dama doon jaay café Touba ndekete yoo moom am na benn jëf ju mu defoon ba yóbbu woon ko kaso bu Louga ba mu tëddoon fa juróom benn weer ci mbir yoo xam ni nduroo na ak li nga xam ne moom lañ leen di toppee jamono bii kon caaf mi ngi bëgg a xëm comme ni ko wolof di waxe mbokki internet yi ci kaw loolu itam moom nee na magam ji di em saw daf ko dénkoon wala daf ko wax ni ko demal nga récupérer ma six cent cinquante mille soxna si di wuyoo ci turu Ali nee na ma daal di nangu sol samaw dàll dem nangu ji xaalis boobu waaye nag man ci sama wàllu bopp maa gunge jeune bii di MMB ba aéroport jour bi nga xam ni mi ngi jël avion pour dem Canada loolu itam man maa ko def mu wëlbatiku ni itam dama bëggoon a dimbali sama mag rek ndax moom ab démarcheur visa la boo xam ni Louga gépp a ko xam amul kenn ku nekk Louga di tukki rek te xamoo ko dama jàppoon ni moom ci logique boobu mu doon dox nag war naa ko cee mën a fekk si en tant que mag en tant que sama mag waaye may rakkam loolu moo waral ñu lëkkaloo di itam nettali na ko leneen li ci gën a garaaw nag nee na mag ji moom def na ay preuve ba pare parce que nag xëy na dugal nañ ko ci gàm boo xam ne comprendre nee na nu njublang la nee na nu sàcc la triant la waaye nag fii dimbali na fi ñu bari ñu tukki loolu kàddu itam rotal na ko nee na dama jàpp ni moom kat dafa amoon yéene rek dimbali candidat yi ñu dem emigré ji waaye nag lii ñu ci dab moom vraiment ah mën nañ ko jàpp rek ndogalu yàlla ndekete yoo gaa yi ñoom ba ñu commencé di gis ay bunt yoo xam ne mu ngi commencé di ni ko ci seen mbir yi ca la ñuy sol seeni daal dem defi plant Euh, bi nga xamee ni déglu nañ ko partie civile bi daal di weddi kàddu yooyu mu wax maanaam ñi nga xam ne ñoom lañu njublañ seeni xaalis ñoom dañoo weddi ni waa ji lii muy wax nii day day théâtre ndax amul benn preuve bu mën a teg lu dul dem ñoo wëndeel parce que mbir mi demewul nii li mu fi nitti li yépp lu mu créer ci esprit la daal di koy indi waaye moom day leer na ko ni moom magam ñu te ay njublañ lañ te li nekkoon seen yéene mooy fexe ba ñun suñu xaalis yi nga xam ni ñàkk nañu ko lijjanti ko ay at sonn ci loolu yaakaar tukki ndax mënoon nañoo jël gaal yi di dee comme nit ñi wala ñu ñuy dëpp waaye defuñu ko dañoo bëgg aw ci voie bu légale ñu wut suñu papier yépp moom mu ni ñu war nañu mën a mën a démarcher ab visa ci ambassade yi moo xam ambassade pays européens yi wala kanada bu ko defee ñun ñu mën a dem ci dem bu wóor ñun ci loolu la ñu jàppoon ci loolu lañ focalisé woon ndax ay waxam ba kenn ku ci nekk yëkkati seef xaalis bu bari jox ko ko muy ay millions yu bari moom ci wàllu boppam sax mënta xayma millions yi ñu ko jox ndax bari gum bari lii la plaignant yi wax. partie civile lii la wax ñoom nag ñu ni benn mbir lañu am il faut moom mu leeral leen xaalis yi ndax da ko lekk wala def ko denc quelque part bu ko dencee quelque part ne leen remboursé. ñoom ñu xooraat yeneen voies yu nu aw pour dem tukki parce que planifier nañ seen voyage te mënatuñoo deltu ginnaaw loolu itam yokk nañ ko ca wax ja euh, ñoom itam ñu ni kenn ku naan Ali moom nee na jox na benn million ñaari ñaari montant yoo xam ne benn bu benn million la démarcheur bi pour moom mu man ko lijjanti visa xaw nag ñeneen ñi mais nee na moom maanaam deux million jox na ko ñaari tranche la benn million joxaat ko beneen démarcheur bile ngir mu mën a tukki nee na itam li nga xam ni mooy seen diggante ak waa ji mooy ñoom danoo jàppoon ni waa ji war na leen a mën a lijjanti visa Espagne non visa Canada nee na bi ñu toogee nag waxtaan mu ni ko boo amee juróomi million dinaa la wutal visa Canada ndaw si nee na ma amee sama dërëm indil ko sama ñaar dërëm ba noonu nee na ma jox ko avance un million commencé di dàkkante bi ñu toogee ay fan yu néew nag nee na mu woo ko ni ko il faut daal nga envoyé ma xaalis ndax dama bëgg a délivrer benn prise en charge ci la nag ndaw si commencé xelam di tee mu ni waaw man kii li ñuy waxtaane këram ba ñu tënk ko ci ay kàddu muy logique ba mu yëkkati fa sama avance jox ko beneen ndaw mooy wax de nee na waaw kii moom pour lan ñu toog ay fan yu néew mu may laajaat pour ma dugaleel ko xaalis ndax dafa war a def benn prise en charge loolu mooy waxu lan ndaw si nee na ma commencé di douter sama esprit commencé di di voyager nee na ci circonstance boobu ma toog xalaat ma ni man est-ce que clairement kii may dugganteel sax wóor na nee na ma toog ma toog ma toog waxuma moom téléphone ma daldi sol sama dàll jóge Louga dem ambassade bu Canada ca dakaar nee na ñooñu xamal ma ni ma amul sa benn dossier bu ne ci suñuy archive ma nag kon waa ji njubleen na ma parce appelam bi ma mujjee woo di ma laajaat xaalis rek ci laa xam ne kii affaire am leerut heureusement bi ma ñëwee ambassade ndaw si daal di dëpp dem Louga bi mu dëppee nee na ma dégg ñu ni M Sow daal di nañ koy teg loxo gendarmerie jàpp na ko ba yóbbu nañ ko ci kaso bu Louga nee na nag ci laa dem porter plainte xamal leen ni leen man itam yóbbu na sama xaalis ku nuy wax MMB nee na moom jox na ko ñeenti millions waaye ci ñeenti millions yooyu waa ji respecté wul benn yoon engagement am ginnaaw nag MB am na keneen ku ko jox itam ñeenti million loolu itam kooka xamal na ko mu wëlbatiku itam ni kii respecté wul engagement am ginnaaw ba mu encaissé xaalis yi ba pare nag la mu def mooy nee na dafa bëggoon a jaar ca Nicaragua mais dafa bañ. nee na bi mu ko encaissé ba pare def ni ko dama lay yóbbu Nicaragua ndaw si ni ko du dem parce que Nicaragua après da ngay émigrer par des voies clandestines ba pare danger yi ci am man mënuma ko def ndax jigéen laa mënuma xotti yooyu nee na yooyu sax jotoon nañ ko fay waxtaane fekk nag waa ji planifié na lépp petit frère am nag moom moo ko accompagné ba aéroport fekk waa ji planifié na lépp ngir nag mu gën a mën a réussir kuuram ndekete yu ndaw sa keneen kanu yóbboon aéroport kooka demul fenn daf ko bëggoon a njublan rek jaare ko foofu mu saw ñu daal di koy laaj waa yow lii fii nit ñi wax yépp nu mu demee bi tribunal laaj ko ko mu ni moom am na expérience ci domaine bi am na ndaw yu bari yu mu yóbbu ñu dem voyage tey jii bari ne ñu bari Louga bu nu voyagé man maata dama leen a bëggoon a dimbali rek nekkuma ab arnaqueur man ci sama wàllu bopp sa dama ciy dépensé xaalis xaalis bi ma leen di dama koy dépensé waat ci seeni papier mu ni yoon wi ngay aw pour am yenn papier yi moo gudd ñoom nag malheureusement amuñu patience ndax jàpp nañ ni man am njublaŋ laa lii la waa ji expliqué ba mu leen dégloo ba pare mu ni nag ñu bari porté nañ ma plainte tey am na ci ñu bari ñoo xam ne ña nga Europe kon nag sant yàlla ndax man li ma waroon ci ñoom def naa ko waaye nag comme benn euh, minorité bu ndaw rek ñoo bëgg a ñëw di ma saltel sama liggéey amul problème maître Mané nekk avocat partie civile yi ni daal ñaari frère yi ñoom conscient nañu waaye mënuñoo yóbbu kenn fenn mu tukki nee na daal nañ ko nañ nañ leen daal di tëj nañ leen sanctionné par rapport ak peine exemplaire yi ba ñu délibéré nag ñoom ñaari frère yooyu tribunal daan na leen kenn ku ne juróom benn weeri kaso par rapport ak la ñu def kon loola mbokk yi ma nga xewee ci tribunal bu Louga ñu jàngat ko jamono bi lee euh, li ñu wax rek mooy wàllu patience dafa amatul ci ndaw ñi démb rek président de la république ba mu ñëwee ca tefesu tama tamalon si ba ne ca mbuur nga xam ni daanaka jamono bile ak bilan bi ñeen fukki victime am na ca yoo xam ne fanweer ak juróom-ñaar ya ñàkk nañ seen bakkan ak ñetti rescapé ma ne la jëye joji démb ba mu ñëwee rek di jàlle askanu Sénégal askanu mbuur ak famille xam le na ni daal ndaw ñi il faut ñu am il faut que ñu sécuriser waat voie maritime bi ñu dugal ab numéro vert ngir di ca woote ba képp ku ñu gis nga jël ak gaal rek di fëq ñu man laa yoole boo gisee gaal gi ak démarcheuru visa yi dafa xaw a nduroo ndax en général bu réussir rek échec te malheureusement waa ji saw projet mi yépp li ci gën a échec bokk na ci loolu ndax dafa am yéene yóbbu waaye malheureusement ñee itam amuñu patience xar ko ñu dem ba ci biir taxe ko njubleen njubleen googu jural ko juróom-benn weeri kaso moog rakkam ndax nag encaissé nañu ay millions te mënuñu ko delloo seeni borom amuñu lenn luñ teg ci taabal ji lu dul ay wax kon il faut que nag senegale bi xalaataat te ni moom wax dëgg wërsëg kenn du ko njëkkante dangay xaar mu dangay nekk ci mbir mu ñëw tey nag dañu bëgg ji tey suba ñu daal di récolter te loolu mënul ne manque de patience parce que tey bu fekkee dajale nga say million mais demal ci ambassade yi nga wuti visa soo amee dem soo amul muñ bu ëllëgee yàlla yàlla mën na dogal nga am waaye li ci gën a yéeme mooy am sa xaalis bu toll noonu dem jël koo xam ne nekkul ci ambassade collaboré wul ak benn ambassadeur ngay yëkkati sa xaalis jox ko mu ni la da lay demal Ndakaaru di la lijjantil ay visa pour nga tukki mais yow yaa yaa yaa joxe sab xaalis yow yaa maye sab xaalis parce que boo dajalee millions yi day noonu war nga mën a am patience topp nag ci wut passeport bis bu la ko yàlla dimbalee nga dem mais nag doo forcer force gi mooy tey ñëw imposer ba jël passeport boobu noonu xaalis boobu noonu joxe ko ba pare ngay mujj mooy justice dem porte plainte waa ji waa ji tëdd juróom benn kaso génn nekkaat ci activité am waa léegi xaalis ba anam léegi yow da ngay delluwaat à zéro di dajale il faut ñu xalaat xam ne mbir mi du yàkkamti waaye planification la laaj ak endurance ndax dafa am solo ci nit ñaari frères yi ñoom itam li ñu dugg ndax xanaa tey boo encaissé ay millions yi day noonu mais nga dem ba mbir mi jaxasoo war ngaa mën a am courage kenn ku ci ne nga delloo ko la mu yoroon loolu mooy honnêteté waaye nag comme mënu koo delloo escroc la njublañ la parce que mënta génn cadre njublañ triant la ndax bu fekkee tey da ngaa dugg ci benn mbir mu échec war ngaa mën a am maturité woo leen delloo leen seenu xaalis bu ko defee jàmm ñi ñooy doo dem prison kenn du la ŋàbb waaye comme amoo capacité yi capable joxe ça veut dire que kon njublañ nga déggoo nga ak sarak nekk ci li la neex ba musiba topp la ca kon mbokk yi fii rek la ñu yem ñuy wax ngeen di abonné di partager di commenter suñuy plateforme bu nu ñëwee di leen li seen rubrique faits divers yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax jaajëf ëllëg ak beneen rubrique ci suñuy plateforme jër ngeen jëf ñu yendu ak jàmm.